doon caméraman bokkoon ci ñi nga xamante ne ni ñoom lañ daal di dóor ci manifester yu amoon ci fan yuñ weesu fii mu ngi ñuy won ci téléphone am image yi firndeel li ni mel. vraiment métti métti na trop wax dëgg parce que période boobu mu ngi fekk ñu ngi introsé benn citoyen muy wax ci di naqarlu aussi li nga xamante ne ni xew na ci Sénégal. moom mi mu mel ni ba léegi mbir yi daf ko daal di jàpp. daanaka biñ dooree seen interview sur le terrain la leen policier daal di bett door leen gaz lacrymogène. donc ñun ñëpp dañoo focaliser woon ci kooku ci interview bi baax métier bi nag am na ay risques mais risques yi li ko gën a waral mooy doxalin bu ñaaw bi nga xamante ne nii takk der yi ñu ngi koy doxalee ak journalistes yi. ca njëlbeen nga nag daanaka amul woon benn jafe-jafe daanaka. policiers yi ñoo leen daal di yombal liggéey bi. fa mel ni ñoom ci li ñu yaakaar ñoom takk der yi ñun ñoo doon influencé parce que le fait que gars bu ñu gisee image yeeg yooyu noonu rek te ñuy gën a yokk période boobu nag nangootuñu benn caméraman wala benn journaliste ne li nga xamante ne nii moom mooy liggéeyam. naam sax. ñi ëpp si ñoom daanaka yoroon nañ seen gilet ak seen carte nationale de presse wante teewul ba tey ñii di policiers yi dañ leen daal di buntu xataal. man bi ñu gazee am na ci ñoo xamante ne nii dañoo am asthmatique dañoo wucc ba da leen di yërëm. ci journaliste yi. ngir xeex li ni mel coordination des associations de presse dafa daal di organiser benn veillée nocturne fale ca maison de la presse ngir rek ñaax autorités yi ñu bàyyi xel ci lii nga xamante ne nii journalistes yi ak techniciens yi médias yi ñu ngi koy jànkoonteel ak policiers yi.